ci tariqa bi nim jaaree ak ni ñu wane ci diggante Moussa ak Xadir mu wax nag fooraayu widda boobu fa muy jaar astaghfirullah salaatu ala nabi laa ilaha illa ak aaya yoo xam ne moom ngay jàng mooy yu ñu tëjee subhaana rabbika rabbil izzati ammaa yasifuun waxaa sal wirdu woowu wird huwa moom afdalul awraad yi moo gën ci widd yi widd tijaan bi moo ci gën waasxalu turuq moo gën a jàppandi yomb ci tariqi almuusilati yàggale ilaa jëm ci yàlla yoon yi ñoo jaar àgg ci yàlla ba ci gën a yomb mooy yoonu tariqa tijaan yi taala wa anfauha te it moo ci ëpp njëriñ ndax yi ci des da nga sonn ba bëgg a dee rek ñàkk jëriñu wa alaha moo ci gën a kawe moom tariqam te lépp dëgg la wa aslamaha moo ci gën a mucc ayib ndax nga nekk ci nekk nit ku simple doo bëri ay cambar cambar wa arfaha moo ci gën a yëkkateku sahanan ci mbir wa xaalan ak ci doxalin wa maqaama ak taxawaay yëpp tariqa tijaan moo ko gën def ñu ne na ko mel dañ ko waaw lu waral nga wax Baye ak Cheikh Ibrahima sax wax loolu mu ne li anna man saa xaatiyi tariqati ndax sosuwaay bii yoon kamaa na ko la waxee saayiba boromam te mooy Cheikh Tijaan ko waxee nee na fam bàyyi ko mooy adairatu alfadilatu ëttam ngëneel ci la bàyyi ko ngëneel nag moom borom moo jël ngëneel ne maa la gënalee lii du sa ndey tax du sa bàyyi tax du kenn tax loolu mooy daayatu fadila tariqa tariqa bi li nga jot li ñu moom yàlla la koy baaxee ca baaxam nga rek dégg nga alati bi nga xam ne war dawaa iri ma ca gannaaw ëtt ya alati yaqin alati yaqin hiya moom daairatul amri wa nahyi wal jasaayi ak fay xam nga sharia mooy ëttëb defal nangam bàyyil nangam soo defee nangam ñu fay la safara soo defee nangam ñu fay la euh, ñu fay la ay soo defee nangam ñu fay la àjjana soo defee nangam ñu fay la safara loolu daayira du daayira faddi la daayira kon dangaa def nangam ju kon fayante la bii nag daf lay xool rek ne yow day yow laa jël sama nga ne yaama ci neex jox daal ko mooy daal wal itibaaraat ak xalaat ñu xalaat ne balaa ñoo def nangam nangam wala waa sim ek war a gar balaa nga balaa nga def il faut nga def nangam maanaam nga am nangam ngay melo wal moxtadaati ak càkkutéef soo indiwul nangam duñ la ko jox naka mbóot la mbóot bu ñuy jaay tariqa bi amut lu ñuy sàkko naan soo ko indiwut fa inna haas yi dawaayir bi nga xam ne mooy daaira yi defal ak baaxal tere fay la ak nangam ëtt yooya nga xam ne ca la ñooy doxee yemam dawaayiru humoomil xalqi mm-hmm. bi nga xam ne moom lañ boolante mbindeef yëpp mm-hmm. mooy daayira bi nga xam ne daayira bi ñëpp bokk mm-hmm. mooy daayira sariya dégg nga daayira sariya moom la ñëpp bokk euh, wa tilka daairatu boobee daaira alfadilatu yemam daairatu al islam daairatu ixtisaas yi ah, waaw daayiratu ixtisaas ixtisaas yi ëttab jagoo la xam nga boo gisee ñu ne arrahmaani ne arrahimi loolu mooy jàngale kon nag ñaar ñépp bokk ñeemandoo daayiratu rahman ñépp ca bokk wa rahmati wasiat kulla shay'in boobu moom ñépp ca bokk arrahimi nag moo ñu yàlla jagale képp ñooy dugg ci rahim yàlla ci wa yàlla boole kon nag loolu nag <clears throat> doomu aadama yi loo xam ne xar yëg ba yëg ñépp a ko bokk boo yemee foofa daal sa sa garaat koy wut waaye ñi nga xam ne mooy ëttu rahim nag mooy ñi nga xamante ni moom malaaka yi dañ ne ko yàlla euh, li nga beral doomu aadama ci àjjana bañ ko gisee ñu ne ko doo ñu bo doo ñu jox fasal ci mu ne déet ku xam ne maa ko bind xaalaa yët yi maa ko bind ci sama loxo duma ko yemale ko xam ne maa ko bind ci kum feekum kon nag loola nekk ci ruq booba dafa am ñu ko fa dencal spécial ëtt bii nag tariqa bii nag foofee la a daairatu fa la fii hiya moom daairatu ixtisaas yi wastifaa yi daayira ak jagleel la ak tànn la subhaanahu fa yadda danga daf koy teg nag li man saa koo neex min xalqi fi koo neex ci mu ne fi daf koy jël na ko yow laa jëbbal nag direction wu ëtt bi ëttab daayiratu rahimi waxaa daayiratu boobu ëtt jaalaha def na ko subhaanahu set na wa xen fay daa ba mu koy fay sotti faa mu sotteeku min baari jóodi wal kërami yàlla dem na nag ba nga xamante ne moom ëtt boobu ba nga xam ba muy ba muy sotteeku ma nga bàyyi ko ci géej gaa xam ne ñaa géej ak numéro deux la xam nga dafa am géej ak numéro un moom la ñëpp bokk bii nag géej ak numéro deux la kon ma nga mbalee ci moom euh, ci min baaril jóodi wal këram géej gi xam ne mooy xam nga tedd nga kooku fala waame waa jógee moo tax moom moom ma nga bàyyi ko ca mbànja xaar nga laax ca géej ga xam nga léegi Lac de Guiers moo ñuy jox ndox waaye li nga xamante nag moom euh, ñi nga xam ne moom dañ ne ba ca Lac de Guiers xam nga ñoom duñ duñ yeexalati ñi nga xam ne ñoom la jàmm bi gën a joxe ci ñu jaar ci ay tiwo na nga xam ne moom Dakar yëpp ko bokk kooku moom waaye nag boo demee ba ca fàjj xam ñu ne nag mu ko doon gi jàng ko léegi noo ko bëggee rek laa lay sottile loolu nag moom faydum bi foofu la bàyyi ko laa yetawaqafu taxaw faydo a faydo xaalaa wujudi saw ci saw ama sabab toog ba mu yàgg ñu ne ah faydu ba kat arrêté jamono bii faydu ba daan dox faydu fay na xam nga léegi faydu bi bi mu tàkkee ci bàyyi gars yi dañoo dem am ñoo xam dugg nañ ci doon sàcc bañ demee am ca problème ñu taxaw nag ne faydu ba sax amoon na waaye nag dafa am musiba wu ca dugg ba mu taxaw déedéet laa yatawaqaf fayduha ala wujud sababin am ab sabab yow mi ci nekk kay yaa cay nekk nekk ci nekkin woo xam ne du noona ñu coupé la waaye fay du moom suñ la coupé suñ coupé nit ki mi ngi daw suñ coupé nit ñi mi ngi daw ah loolu loolu nekk fayduhaa laa yaqi fayduhaa ala wujud sawbin te ñu ne ah jamono bi yàqu na léegi tax faydu bi taxaw déedéet wala yu baali du faale bi man koo xam ne kan nekk fi àccoom ah woo dégg nga woo fiyee moo xam ne matal na bi xoo lam nekkoon ci wala de am la yow mi ci dikk si te dikk si bëgg cee dugg balaa nga cee dugg balaa duñ seet na waaw kii kat li tax ñu ko ñuy may mu dugg si moom nekkoon na de ku doon ku baaxoon na nangam nangam gannaaw daal dikk nga bëgg doo ko pour dugg ci moo tax sari tariqa bi Cheikh Tidiane ku dikk rek jox leen ko moo xam ku doon topp ku doon moy ndaxte ko loo xam ne moom mal topp yàlla mooy yàlla feebar la nga dikk dafa ñu ne doo dugg ci hôpital bi déedéet léegi nag boo gisee ñu ne nag li Cheikh wax loolu ne kuy mooy ak kuy topp léegi ku mooy ki wér na gën naa bëgg a wéraat ku gën naa ku wér ki wéroon na kuy topp yàlla gi wér na bëgg naa gën a wéraat ku mooy ki dafa feebar bëgg naa fayu kon nag moo tax duñ ko fay ay kenn bàyyil mu dëkkuwaay yi te malade bi fii fii fii fii hôpital la ah kon nag hôpital international moom foo feebare rek bàyyil mu dugg te mooy ci wala yu bali bi man kaana fi haa wa fiya bi uhuudi am la intaha ji moo xam ngir woon na asiraatul mustaqim moo xam ba mu dikk nekkoon ci diina ji am saqata wala mooy na film asi ah fi tariqil muqim ci yoon yoo xam ne mooy yoonu musiba ya ba muy dikk fekkoon na mu nekkoon dañ eh, nekk siraatal mustaqim naka dañ nekkoon na ci diina ji xam nga ñu siraatal mustaqim waaye nag ba ko ci daay ko eh, sosiya léegi nag ke dikkoon ci diina wala nekkoon ci tarixa bu dikkee nañ ko dox wala koo xam dafa nekkoon de mooy yàlla ban loon doonoon sàngara ak def yooyu kooku bu dikkee it nañ ko bàyyi mu dugg fi tariqil waqim wala yu baali wala wala yu baal laa yu baali looy sox baan fi ajox li man ataa kañ koy jox kan la kii la kaal wala alama sa utiya ak ci lan lañ ko koy joxe suñ yoon lu mooy nag ka ci yantere mooy tuxkat kooku rek man nag moo nga xam ne kon tux garaaw na de Cheikh nag nee na ak mooy gu yàlla doon gu doon mooy yaa xam naan sàngara ndaxte naan sàngara borom xam daf nekkoon ci mooy yàlla lu kon nag mooy yàlla bu xam boroom xamul ne man mooy yàlla laa ci la nekk kooku la interdit waaye mooy yàlla muy agresseur muy njaaloo muy lu mu doon def tey bu dikkee ne man de damaa dikk bëgg ci tariqa bi jàpp jox ko ñu jox ko sartay da nga def lislaam mu ne waaw da nga julli da nga danga da nga def naa nga mu ne waaw su ko defee da nga jàpp tariqa bi doo ko bàyyi mu ne waaw nañ ko ko jox gis nga bu koy jëfandikoo ordonnance la day gis tane kon nag lee mu nekk nag tariqa bi lee tax ñu nekk nag ku nekkoon ci lislaam ku nekkoon ci tariqa ku nekku doon ci dara bu dikkee tey tey na man daal bàyyi naa la ma nekkoon bëgg naa dugg nañ ko wax waxu ne waxuñ nekkoon dañ koy wax ne ko dañ koy joxe bàyyi lam nekkoon de dañ koy sartaal duñ ko joxee sartaay tariqa bi te bi mooy da ngay nekk ci lislaam da ngay def nangam damay nangam su ko defee booba ñu jox ko duñ xoolat nag nii nag naa ah dégg nga waman waqa ku ne yurub tàbbi fi ci daairati ëtt bii yàlla yàlla may bañ dugg ndaxte bari na ñoo xam ne dañ dikk te dugguñ mooy lan ba dañ dikk amewuñ melokaanu tariqa bi mooy nag ba moo tax baay dana ko wax ci kanam am na ñoo xam ne waaye lay soo tijaanee duñ tijaan kon nag waaye ku fexe ba ne yurub ci biir min xalqilaay ci mbindéef yàlla yi kaamulan man naa loxo ñeel ko asaada texe fi aaxirati alaaxira bilaa sow bi alamin bi ci jaxase benn nit ku ci ne yulub tàmbi da nga am texe alaaxira te doo ca am benn métit xam nga am na ñoo xam ne balaa ñoo dugg àllaaxira dugg àjjana dañu am ay métit métit bii moom da nga dugg àllaaxira dugg àjjana doo ci am benn jaxase Ah, wala tarwiya na amul benn jaxase sa xol buy jaxasoog jaaxle loolu ci am wa fiha ci tariqa bi kama xaal nag la waxoon cheikhuna suñu njëriñ bi tariqa bii na ko cheikh baay na ko cheikh waxee aw xaxa la dugal allahu yàlla ahlu tariqati waa tariqam bi daairatu ëttëm ngëneel boobale cheikh nee na ci la yàlla dugal waa tariq bi fo saara daa dama ji ibaadatu seen jaamu ga mahabbatan wa sukran bi maanaam foofu dañuy kursu ci gën a bëggante yoon la gën a bëggante yàlla ak ab yonentam ku la gën a bëgg yàlla ndaxte ku la fii moom da nga dikk ñu ubbi la ndaxte ñun mooy bëgg yonent bi mooy ku gën a bëgg yonent bi moo la ëpp doole ku la gën a sant jëf ji moo lay gën a nangoo jëfee kon nag ah ay amaloo àlla moo tax bu njëkk dañuy jëf leen yéen kon nag ci seen jaamu gi dafay nekk nag mahabbatan wa sukran te mahaba koo ko def rek inal muhibba li ma yuhibu mu teew koo bëgg rek lam bëgg ci ngay xëy ak gont kon nag ñoom lii dañuy mujj seen jaamu yàlla gi day nekk ci mahaba wiraasatan nag loolu nag doon la muhammad yëpp boo xam wiraasatan doon la loolu nag jaamu yàlla goo xam ne mahaba ak sukur la ñu ngi ko doon ci muhammadiya xaala wax na alayhi salaatu wasalaam afala akkoona ndax duma nekk abdan jaam asakuran si yonent bi salaatu wasalaam ba ma xamante ni yàlla wax na ko jéggal naa sa bàkkaar njëkk ak mu gën a egsi leen doon jaamoo ñu ne day ay si ne ko ah ma yow lii jar na koom ku xam ne sa borom jéggal naa sa bàkkaar ñekk na mujj taxawaay mujj ba su tànk yi néew mu ne ko afala akoona abdan sakkooran kon nag ñun nii buñ nekkee xabu abdan sakkooran ña ko doon ne ci waa joja ñun gannaaw ku la nekk jaam bu la gën a jaam nekk abdan sakkooran moo lay gën a mën a toppati yàlla kon nag ñun ñu ngi doon ne suñ lii mbëggeel gi ak sant gi ña ko doon ne ci rasulullah sallallahu alayhi wa sallam li tax xaalox cheikhuna suñ sëriñ bi inna tariqatahoo naka yoonam wi tariqata sukrin tariqat jaaraamal la da ngay yàlla bi maanaam jëfin yi melo yi doxal yépp da koy doxee ci doxinu sant yàlla ay waay ñu ngi koy sant yàlla rek waqat ata dikkër nag sikruha fi daairati tudd ëttam ngëneel boobu fil kitaab yi cëri alasis te ëttëb ngëneel boobu nga xam ne fi la waa tariq bi dugg alquran tudd na ko allazi téere ba ko laayef loo ko dëkkal albaatu caaxaan min ba yee day taabam wàcc wala min xalfi du agan gannaawam ba àddina tukki alquran ba muy wàccat bopp ah ba àddina tukki benn caaxaan du ci dugg américains yi def nañ lu nekk ba fi ñu nekk def nañ kaamil boo xam pour kaamilu jaxase waaye tey defe naa oh, léegi suñ doom yi nga xam ñu mokkal alxuraan bari fii ci Sénégal tey yaakaar naa ne balaa ñoo boole ndax ñëpp ba dugal ci ci bokk du yomb de xanaa nañ dem benn réew waaye réewu Sénégal moom xam naa ne moom dafa yomb ah, ñu ne ko ne ah bàyyi ne man lu ma leen wax alxuraan la leen indil de daayiratu moom ci la tariq ko ñu ne ko nu mu ne wallaahu yàlla yaxtusu dana jagale yaxtasu dana jare jagale ah li ah wala yaqusu wala yaxtusu dana jagale bi yi yërmandeem man yasaa ku ko neex la ilaha illallah yërmandeem nga kan mooy yërmandeem nag xam nga laahu mooy numéro un rahmaan mooy numéro deux rahmaan nag mooy yërmaaneem ja kon nag man maa jël sama yërmaane nga jagal ko ko neex ñu ne ngaare wallaahu yàlla sol fadli mooy borom benn asim kon nag gaa yi ko fadli mu noonu waaw léegi nag yow nga defee ne dikk ci tijaan yi yomb na moom moom moo lay woo ci ne xee kaay dem ci sama yërmaande gi fekk daf laa bëgg yërëm soo dikkee nag borom ci ëttu yërmaande ñu ne acca demal ci ëttam ngëneel ba yow yàllaa la baaxe ci ñu yàlla baaxe demal ci jataay ñu yàlla baaxe foofu mooy daay fa fadila kon alxuraan na ko de bul wax ne Cheikh dafa indi lu bees benn ah dégg de ah dégg de kon indil naa la benn wa qaala taala waxaan na ca deuxième innal fadla na nga neel bi yadillahi mi ngi tegee ci loxo laaw moo tax lii nii ñu nekk laawoo ko teel boppam ba gis ne kii mérite naa dugg ci sama ëttab yërmaane ba mu ne ko acca Cheikh bàyyil kii mu dugg moo tax tariqa bi li jaarsa bi du bàyyikoo ci Cheikh li jaarsa bi ci laaw lay bàyyi yow na xam nga laaw mooy kat mooy numéro un su ko defee nag moo tax bàyyi ne waman tasa dara lil mashiqati qabla wujudil ismi minallaahi ku daju ne yaa ngay doxal affaire tariqa bi te amuloon diggalu bàyyi koo càllaaw faqat day xar sànq na diinawoo sànq na diinaam wadul yaaw sànq na addinaam waftadaa bay na am naa jiti te balaa moo dina am gàcc kon nag moo tax fii darse kenn du toog rek samp ne man may man man muqaddam la wala nga jël ay muqaddam dina samp ci bànneex dafa am critères yooyu rempli ñu doog laa jox oh, lijaasa lijaasa kenn du ko joxee ci ay critères tariqa bi boo dikkee moom nga dikk nitu ordonnance man ñu may la nga dugg soo duggee nag yow yaay liggéey ci ci ci armée bi ba am nag léegi nag ay garaat boobaa yow sa garaat moo la ëllëg sa liggéey moo la ak la ci garaat kon nag loolu la mbir mi nekk laaw ko téyel boppul de waaye bàyyi ko xamante nag mooy rasul bi rasul Ablaay ba du moo ko téye fii dañ ne ko toogal ma fii rek ku ma nar a jox teg sa loo nga jox ko loolu la moo tax mu ne ana alqaasimu alaahu almuxti man seetlekat laa dong waa laa yow joxe kat qul innal fadla naka ngëneel bii di laaw ci loxo laaw nekk yuuti moo koy jox man yi saa ko ko neex wallaahu laahu mi nga xamante ne mooy joxe euh, ngëneel waa si on ko yaatu yaatuwaay boo xamante ni amul fu mu ak amul fu mu am alimun ko xam la kam war a jox lam am bëri na xam na ñam ko war a jox kon nag fii nag jarul njëkkalante naan maay jot lii wala sama waajaa jot lii yow kay nañ ko rek rempli rempli critères kon ñun fa war a njëkkalante mooy liggéey ak fexe da nga xam mahaba ba ak cant ga lañ doon ndax ka nga doon ko gannaaw moom moom da ngaa doon ca mahabatu ak sukuru loolu lañ doon ne ca laaw yow fexel la nga doon ne ca laaw te la yaa te laaw te la lay maye nga dem fexe am loola tey nag boo gisee Cheikh moom tariqaam bi mu gën a mucc ci tariqa yi dafay dikk moom fexe kenn du jaar si digganteeg laaw ba léegi nag man isaa ahtaytumahum tariqati fi qali bayni bay baynahum fa ana cheikh boo joxee tariqa bi kan ko jox yow boroom li jaar sa kam li jaar sa bokk ak lënd jogal sama diggante teg ma ko yow doo sëriñam lu tax seet yaan wax bañ loolu ndaxte booy dikk ci rek jot daal di àgg ci wa man yuti'i-r-rasuula faqad ataa Allaah gis nga directement yow booy ak Cheikh rek ak seen ci rasul bi yow mi xam diggante euh, rasul ak laahu yow xam nga ne amuñ ceqale ko yaddullaahi fawqa aydiihim kon nag moo tax tariqa bi kuñ ko jox du cheikh la ko jox blaaho la ko jox kon nag lii dafa jigante jigante ko moo tax gis nga ku la gën a ëpp maarifa ku gën a xam cheikh moo gën a bëgg yonent bi ku la gën a jege bëgg seex moo la gën a bëgg ku la gën a jege cheikh ku la gën a topp cheikh moo tax ba bàyyi ñes moom dafa dikk rek ah di mën a ko يا رب فاجعلني له دهر قادم اي لو سما رب def ma rek ma bokk ci nga xam ne ay surgaam nañoon fépp daaroo ngay daw rek gis nga lii la ñuy jëkkalante ñoom ñun dañoo waroon xereñ taalibaay dafa waroon xereñ baa bàyyi moom liggéeyinam nu mu dee lu tax nag moom mu jël rek wii sa yëg liggéeyam nag mu nekk xadim xadim bu mu nekk nekku sëriñ taanu sëriñ xanaa nekk jaam nekk surga ñun soo demee ba xam li tax bàyyi taanoon loolu yow itam doo fi dikk de tànn lu mooy loolu waaye na nga dikkee dafa tànn ma nekk la may man may bara may grand may nangam maa wuutu baay may naa wuutu baay waaye da ngay sonn te doo ko am dangay fexe rek yoon woom jaaroon topp rek moo tax daf ko waxtu la man araada an yàqoon na ma ay kun na ma ànd ak man nekk ànd ak man fal yasluk na jaar tariqi fa ma jaar fil aqwaali wal afaali ca waxin ya jëfin kon lii kay ndax waxi ni nit ñi wax te waxi ni bàyyi la ndax jëfi yi ñuy jëfi te ndax jëfin baay la kon nag loolu nag nañ ko moytandiku dugg ci te fekk ah, na ci laa bokk te fekk remplir au yi mën a bokk kon nag yàlla xàmme na de ci laa ci laa taxul nga ne ci laa de kon nag yàlla waa si woon alimu xam na moo tax xam ñaari baat yi mu indi gis nga PM numéro deux par deux la fay indi ndaxte foo fekkee tur yàlla ci alquran yëpp du indi wenn tur ah, ah, alimun hakim asi waasiwoon alim par ñaari tur la indi ah loolu day yàlla wax na ko ah ak aaya troisième wa kaana nekk na wax alquran nee na wa kaana nekk na fadlulaay nga ne lab laaw xasi mandulu ngande ngande aleyka ci rasulullah nga ne lu la yàlla bu mu la defal yow rawa yow rasulullah nga ne la rëy na waa léegi nag eh, baaba su fekkee nit ñi xamoon bu ñu déggee rasulullah rek ñu jël ko ci jël ko ci numéro un ah kon xay ñu dañuy indi dañuy indi kii waaw léegi nag da war a nag xam nag rasulul xàq bi kooku mooy numéro un rasulullah mooy numéro deux bi kon nag numéro deux wa kaana fadlay alayka asiman xanaa léegi nag nit ñi suñ bëggoon yàlla tuuti daañ déranger wu ñu xam suñ wax yi parce que lii leer nañ waaye nag niñ ko waxee moom xam nga boo ko waxoon koo xam ne moom xamul luy loolu moom du waaye ñu ñu dugg bi ci kër kër gi gii war nañoo xam nag ne yàlla du un wax naa leen ko ba taay un moom yàlla ni un moo da lim lu ñuy lim moo tàmbalee ci un waaye lu xam ne amul lim yàlla fu mu dalee fu kon nag kooko du kon nag kañ dalee ci un keneen la dégg su ko defee nag kon nag waxtaan nekk na fot lay alek asaman yow numéro deux ah léegi kon nag tuddaan na nga neel kon foofu de mu ñetti yoon ak fan bàyyi ak yàlla na wës aloo laaj leen alaaha laaha min fadli ci ngëneem bu leen dem na Cheikh Tidiane may bi bul ne bàyyi may ma gis nga alquran ku ci yaroot laaj leen laa xala wax waxut laaj leen bàyyi waxut laañ leen seen sëriñ si waxut laajal jibril waxut laajal malaaka yi waxul laajal kenn laaj leen allah min fadli waay waay taalibe bàyyi ku ba kuñ bu nga ba ci yaa ba ci laaxu ba nga nangul ne ko laaxu yow laa nangu ne yaay maye yaay joxe yow rek a am waaye waaye nan ngay tarxee seet dem naan bàyyi may ñoom jërëjëfe bàyyi fàtte lu xew ndaw xel wu rëy ndaw gémmiñ gu yaw ñun ñun dañoo àddu kalpe ñun ñoo ñun dëgg dëgg dëgg yàlla ñu ñu agressé ñu agressé dëgg dëgg dëgg képp ko xam ne yaa karye wax yoo xam ne day tax nit ñi fàttee waxin ya rey nga nit ñi te lii du waxinu bàyyi jërëjëfee bàyyi yàlla ñu bàyyi may yàlla kenn jàng ko ci kenn jàng ko ci bàyyi kon nag was aloo laaj leen alaaha laaha loolu laa leen sant de foo koy laaj biin fët li moo tax nag hey koo dégg mu koy wax du arrivé mukk billaay maa leen ko bind hi du am koo ci yàlla dem na maa ngay laaj keneen doo arrivé mukk laa fi dunya wala fi àq du ci àdduna ak alaka mbokk yi nañ yaru bàyyi nañ bàyyi lang bi xam nga am na ñoo xam ne dañ cee nekk dañ cee lang jërëjëfe bàyyi xam nga mas naa ko def benn place sama sama jàngi ma defoon ah, ci ñaari tëri ba ma ci waxee am nga ay jóg ne jërëjëfee bàyyi ma ne waaw bu la neexee wax de waaye doo bokkam ci bàyyi de <laughs> ah xam nga léegi nay mel ne oustaz nga yéen a xaral te moom oustaz oustaz def loolu laay biir yow na nga dikk ne yaa ngi koy naqaral yow yàlla nga naqaral man man ba waxu yàlla la jottil waxi bàyyi laa la jottil mi ngi nii sur akbar bàyyi jël aay ci sur akbar ci page cinq bàyyi dama baaba dama fàttali na ah, page bi page cinq xam nga woon gis nga bu ma bu ma sama sama xel mi yëpp benn wii la am man ama ñaari xel du ma xool ah, xat maag lii ak laa fa dalee kaay ba su ma gisee ba tàmbali soob dama gën rek kon nag mi ngi nii bu kenn wax mi ngi ci paa ci surul akbar ci paa cinq bi kon nag wasaloo laa min fadli wa qaala taala laahu nee na waman képp koo xam ne yuti topp na allah allah wa rasoola ak ndawal laaxu la fu ulaayka ñooñ nga xam ne ñoo defee nii ma na mi ngi ñu ngi ànd nga xam ne anama xew na ala xalil ci ñaar soo boolantee topp leen ah fañ jaar fi teg seen nga ñibbi nga ñibbi fa ma allazina anama laaw alim la nga ànd ñaa xamante ni ñoom la xewal mooy ñan mina nabi na nabi na benn nabi la mooy aadama am nabi yi jur nabi yépp fa ñu ñibbi nga ñibbi wërsëg mooy yan mooy Muhammad ya bokk wërsëg yi mooy wilaaya bi ñu dëggu ña waliyu ki nga xam wa sidqu wa sidqu wala si jaa bi sidqi wa ki dikkee dëgg te dëggal dëgg kooku mooy siddiqi kooku la mooy numéro un ci siddiqi mooy Babacar mooy Babacar mooy siddiqul as asqar ak siddiqul akbar siddiqul asxar nag mooy bi di kon fii ci yonent bi moom nag nam di ko njëkkee numéro deux nekkoon nekk nekk numéro de yonent bi ne un mu dikk ne deux ah, kooko def ñëwoon nag numéro un ba nekk yonent bi nekk ca buttoon kam nekkee un ka nekkoon deux ca buttoon kooko nag bi mu dikkee nag kooku ma siddiqul akbar bi kii dikk nag def ndaw su too borom lu borom lu tuuti lii dikk dëggal ko kon nag boo dikkee yaa ngi ànd ak numéro un yaa ngi dikk dikk ànd ak numéro 2 fekk nag àndoo tàmbalewul fii àndoo gaa nga tàmbale woon ca ëwalu aaxiru zaahiru foofee la commencé woon mi nga xam ne yaa dikk topp ñaar ñeeg seen ñaar tànk yi te xadamaaya xaataaya xanaa daf lay fàttali nag ñaar ndëggu sixi sama ñaar ndëggu yii fawq ra fawq raqabati kulli waliin wax na dëgg de ñaar ndëgg yooyu moom moo moom lu ci na ma waaye waxul ne maa ngi leen joggi bi maanaa mbii moo sut taxawaay bii moo sut taxawaay yépp ba léegi nag ku bëgg a am taxawaay bu sut ci taxawaay da ngay jël ñaar tànk yi nga taxaw ko laaha rasool laaha rasool laaha rasool mooy nag nu ngay dox kon nag boobaa nga dikk ne kon nag buñ ci dikkee ci biti nag nga ne shariha tariqa shariha tariqa kon nak ya nga and ak soxada set ak sidiq wa soxada ak nga xam ñoo soxada soxada boko dikke mo ñi fanaw ñooy pey fanaw ku rey bakaram ndax dana jeex dana del ci yalla mo la tuddee ñu tuddee ay soxada kon nak ñet ñi nga xam ne mooy ëttu nabi yonent ya ëttu sidiqin ya ëttu ñi nga xam ne mooy ya wa salihin nag bo déggee kuñ tuddee salih da nga fekk nak yow yaa ngi ci quatrième gala gala euh, kile eh, bi maanaam passé nga def quatrième ndaxte boo amee tawhid am nag nga am yonent ga am wilaaya ga am xilaafa ga dikk ci daayir saalin kon nag yow nekk colonel nga léegi am nga cinq gallons xam nga cinq gallons soo dikkee fu président yay toog foofa ngay toog de am ministère foofa lay toog si de ndax général la léegi day nekk général léegi kon nag léegi ku topp gaay te kat moom woteeluñ ko defeelu dara faluñ ko nomewuñ ko ndaxte ak nu boo nomination la ak wilaaya nomination la ak xalifa nomination la kii nag dafa liggéey de liggéey de liggéey ba am nomination bi nag kon nag am na tamit bu ma tëkk topp boro sariha ca nam waree topp tariqa ca lañ ko waxee topp fay dañ ko waxee dikk nag di jëfandikoo ay jëfam ci amalu saalihin muy daayiratu ixlaas bu dikk ci sellal wet kon nag kii nag am na cinq grammes kon nag léegi colonel la ah rafet na uuraay ko rafet ndaw ñu rafet ànd ak nga jaar fii gis nga te ñi ñii ñoo ko re ñoom boo dikkee boo leen toppee duñ la dem ne kii baa doolal fii la war a toog man maa fii la war a toog déedéet yaa moom fa mooy toog gis nga cinq étoiles boo àndoon ak président délégation président hôtel boo xam ne cinq étoiles ca la lay tegeen di dal yéen ñëpp wallaahi képp koo xam ne topp na laaw rasul ni nga gisee buur moo tax bàyyi ne walim laa wa dégg nga wayisul mal gi hisul abdi hisu maliki lu tax nag man Ibrahima Niass li ma am du ko am ndaxte boo déggee ne jaam da dafa tedd teranga jam nga top teraangaay buram ba kon nak bo dege dina xaja xaja bu fo bu de xeer dafa lay fa lay nekk dafa am ben way bo xane dafa dama lol ni koy baba jall yalla ko yeram ben bamba du la dara waye dafa sama firi xam nga alhamdulilah rabbil alamin yalla dañu ma sama ci firi bañ njëkk ci kër baax tax lu ko ba legi man don firi muñ day day ba mu ba mu waaj toogee da ci kaamil nag mu ne ma ustaas mu ne xaj buy yëg as di yëg avion di yëg ci étage di lekk noom leen borom ba borom ba mu topp tax waaw borom xaj bee tax <laughs> waa ji gën a ñun bu ñu jegee am nga ne lii tey ñiñ topp tax toog ba yëg ci maqaama yoo xam ne tey benn xut bu ma su ko waxtaanee ah benn ma su ko jege kon xamal ne gaa yi topp la ah moo tax ku la ku la raw ka nga topp ka yaa koy raw waaye ku la gën a bus ka nga topp yaa fay gën a bus kon nag nañ seet buñ seet sëriñ si nañ seet ña leen topp rek kon nag toog naan sama sëriñ ma mooy lii mooy borom maqaama mooy borom daraja ya baax na weddiwuñ ko waaye nag nañ dem na yow nag lu mu la ca may moo tax man kon li may wax man oustaz Guèye soo ne ma sa sëriñ ak bàyyi ma ne nañu àgg sori na nañ dem ba ak sa sëriñ bañ pare soo gisee mu raw ma ñu doog ko wax nag ko bàyyi la nga dem ca bàyyi waaye man lu wér te wóor maa si sëriñ buñ demee da nga xam ne man maa ko raw loolu der ko nañ xam nga loolu man damaa bañ taal bi nañ nañ fexe ñun bu ñu roy gars yi xam nga ñun dañu bàyyi ñun nag suñ ëtt bi dem da roy ne naan jërëjëfee suñ sëriñ bi jërëjëfee sëriñ bi jërëjëfee sëriñ bi nga dikkee nag jërëjëfee bàyyi yow wàllu yan nga boo xamante ne bu bon a bon a bon na liggéey bi nga ñëw fekk nañ taxawee dafay cal seen sëriñ nga dikk ne ko feccal day fe day ci baay yàq nga si liggéey bi bàyyi loolu nañ xam nañ toppe boo bëggee bokk ca groupe ba yoon waa ngi nii bàyyi indil la ko wa man yuti illaha wa rasul fa ulaika ma alladina anama allahu alayhim min nabiyin wa siddiqin wa sohada wa saalihin wa hasuna ulaika rafiqa soo bëgg bokk ci groupe Baye Niass bi ak groupe Cheikh Tidiane bi ak groupe Rasulaay bii ak groupe gaaya dikk jaaral jaaral fa gaaya jaar waaye dikk nañ ja eh, topp gaaya ñu aw ndeyjoor nga aw jàmmooy waa càmmooy fa ñibi nga ñibi de asaabu yamin wa asaabu simaan lii nag su ma koy wax da ko détaillé dama ko wax wallahi damaa yërëm te damaa bëgg ñi nga xamante ni ñoo teg yoon walaay yéene wu ma leen ko walaay maa li yéene ñu dikk fi nga xamante ni mooy fi nga xamante ni mooy baaxee kaay waasona ulaayka rafiqa ah zalika nga mën a am lii nag yombul ah alfadlu mooy ngeen laay bàyyi ko ci li may boo déggee nga ne la laaw dëgg-dëgg mooy yàlla may na nga am chance nga topp un deux trois quatre cinq ba am nag galon galon cinq galon lii moom nga ne lu laaxu la yàlla ñu ko yàlla jox waaye nag dafa am sabab nag mooy toppe rek toppe daal bu ñu ko waxee xam nga soppe ak toppe ni ñoom dañu ko bëgg bàyyi rek a ma takk wala bëgg sëriñ bi rek wala bëgg rasul lay déedéet waxuñ soppe toppe lañ wax waman yu tee lañ wax waxuñ waman soppe yesum boo soppe yow bo kon nag <clears throat> léegi andil naa la foofu ah léegi nag waxoon naa la fale bii mooy cinquième gis nga nañ ko sax cinquième aaya ba bàyyi ba bàyyi indi moo tolloog cinquième gallon kon nag wax andil la juróomi aaya yi lay tegtal ne atti bii du caaxaan de wa qaala taala fa sawfa yëtii seetal li lay xamal ne kon nag ndeke ci jamono saaba ya ma ngay dikki ca feewu feeba fa sawfa yëtii xel si nay indi si indi si bi maanaa leen danaa leen masamay danaa leen may ak danaa leen masa may si boo déggee naa leen masa ma ngay ñëw ci kanam bii nag moom la yàlla waxoon ne kon kon saaba yi xamoon ne du du heure bii ngeneel bii nga xam ne mooy ngeneel tariqa bii kon kon ju ne fa saw fa yaati dana masa indi si allaahu laaw bi qawmin ay gaay Muhammad ñu la kontor fii ci digg Màkka ak Medina gii yàlla dana ma sa indi si ay gaay gaay nu ñuy men yuy buhum dana leen bëgg moom laaw dana bëgg gaaya wuy boona woo ñoom itam ñu bëgg laaw ñooñ dana ma sa yow de kon nag wax na tariqa bi tariqa maa bala kon nag tariqa baa ngi nii ñañ présentoon ñi ñu alquran waxoon ne mi ngay ñëw si xag si na dana ma sa ñëw si gaa yoo xam ne yuhibbuhum wa yuhibbuunahu ah dara leen bëgg daañu ko bëgg waaw seetal pré tariqa boo xam ne présenté nañ la ko ah eh, ca premier ca gàtt ba yonent bi nekkee ca Makka Medina ñu naa ah, xam nga xam nga lii kuñ fonk rek la seetal fonk giñ fonk groupe bi jël na lu ma téeméeri at junnee at kon ak téeméer ak juróom fukki at la groupe bi doo ko commencé fecc ñu présente leen xam nga lu ñuy fàttali yonent yàlla Muhammad salaa salaam ca tawraat ca injil ca saboor waxoon nañ yaa ca rasul min ba'di ñëw de su ñëwee nii su ñëwee nii yonent booba nag ñu présenté woon ba mu dikkee moo présenté at beneen groupe moo mooy moo tax li ma ne kon nag fële ëttab xaama la fii xëttab xaasa la rahmaan la wa ma arsalnaaka ilaa rahmatan ilaa kaafatan waaye nag rahma rahma rahim nag moom kooku moom affaire la beneen kon nag moom la wax nag kon nag fa saw fa yëati gis nga baatab saw fa lu mu du may du ëllëg dana dana mës indi si dana mës a indi allahu bi qawmin ay gaay daf ko nëkkiraat bi qawmin ay gaay yuhibbuhum yooyu dana leen bëgg wa yuhibbuuna wa ñu ko gis nga péeb yonent péeb bii maa yuhibbu yuhibbuhum wa yuhibbuuna woo mooy bi radiyallahu radiyallahu anhu mooy beneen pays ba ca këkkale waaye pays bi nga xam ne mooy pays numéro un bële ca fële ñu nekkoon ci kaw a kaw xam nga dafa am un ci biir un bi mooy ahmadu cheikh ak ahmadu rasul te nag misiri moo ko wax du oustaz Gueye bàyyi ña moo ko waxee de alam tursili cheikh tijaaniya xaatiman wa alaytuhu fawqa suyuuxul akaabir du yow yaa yoon cheikh tidiane ah xaatiman mu nekk xatma wa alaytuhu fawqa suyuuxul akaabir du bàyyi ñis moo ko wax kon nag oustaz Gueye dem laa indi loolu bàyyi ñis wax bul wax ne moo ko wax kon nag alquran wax na la ko bàyyi na si bindikeel la alquran wax la la indi donc kat moo tax ñaaxaa dégg niveau yi waxi gaaye ndax amuloo seen niveau nga leen kontor xalaku bu ko mel man nag damaa ci ci xale yi suñ xale yi jamono bi yëpp borom xam-xam yi ndaw yëpp luñ leen jàngal kontor ak débat rek waaye nag nañ ci xam nañ de balaa ñoo def dugg ca débat ya nañ dem ba nga xamante nañ seen eh, seen débat deeb yi xam nga débat deeb boo ko déggee mooy koo xam ne yow ragal nga ki ngay bëri ñu defal la ay débat déet naka mën a bëri ah. dégg nga nañ bàyyi nag débat yi ak débat déet yi ñu dem ci dëkk bi fa saw fa yëti dana mës a indi si indi si allahu bi qawmin yuhibbuhum wa yuhibbuunahu lii dafa jar a waxu xadde ñu ne ko waaw nu ñuy xamee nu ñuy xamee ñooña mu ne asillatin dañuy nooy népp neex deret xaalal mu'miniina ci ña gëm ña laahu ak ba suñ gisee ku gëm ku gëm laahu ak rasul dañuy nooy nepp xam nga loolu dañu gars dañ dañu foog na mooy saaba ya waaye dañu waroon seet ñëy yàlla wax ne ña ngay dikk ci waaye saaba ya kay ñoom ah gëmal wala ma rey la léegi rek waaye nag ñi nga xam ne azillatin alal mu'miniina ay sëtët yoo xam ne dañoo dëgër këcc alal kaafirin bi maanaa ñoom boo dikkee ci diina ak ñu neex waaye nag boo laalee diina foog ne mënal nga dañoo dañoo dëgër këcc nag xanaa xamul ne suñ mag ñi nga xam ne ñoo dikk ba tax ñu ñu réussir tubaab yi ñoom bañ dikkee dañoo sens position wu guerre ni ma koy jàngalee jamono bi nga xam ne tubaab yi indi nañ doole ba ci si ko war a ko dañu jaay ko doole légui nak kurel bi nga xam ne ñoo dikk ba réussir dañu dikkee ne nem rek su tuba bi na hay rek ñu ne way nag ñoom nag fekk nak waye seetal 95% vingt quinze kenn yaakaaru Sénégal da ko ak mi ngi ni tay dañu noy nepp ci way gëm yi bo way gëm yi ñeme ci leen dugg si ay seetin alal kaafir mënaaluñ len dara ñu ne ala jëb lay sa doom na dugg day dugg soldaar man da dugg soldaar ñu ne ko nak mu dara wa kon dem na gambi do fi taal guerre <laughs> ah ñu ne sëñ Tuba nanga mu ne ah mu ne ko ñu àcc ko nee gën a gën a nay gën mu ne ko na gën leen man kay tubaab ñu ne ñu ne doo ñaan tubaab yaay man déedéet ñu koy yàlla yàlla xéwal leen ndaxte xamul tax ñoom xamuloo ne nit yàlla mën la ko xeex yow yaa ko doon arrangé ndaxte fi ne nii bañ ko génnee lañ ko gën a lancé ci lañ laaj say waa laaj si wilaay wilaay sëñ Tuba mu dem ba Gabon ñu ne yàlla Gabon jàng ko wax lu moo rey la <laughs> ah promotion la kon nag ñoom dañoo ay sëtit ak yu jaahidoona fi sabilillahi ñoom dañoo ja dañooy xeex fi sabilillahi de wala yaqaafoon duñu ragal lawmat laa'im si nga de duñu ragal yedd ku leen yedd xanaa xamuloo ne ragal ku la yedd ci diina ji loolu gànnaay gi gën a bon ñu koy utiliser mooy xas la so ragalee xaste ci diina ji do nek soldaaru yalla so amé kerse ci diina ji do nek soldaaru yalla so ñaayo bëgg ci diina ji do nek soldaaru yalla dak yoy yëpp ñom loolu mooy seen matériel so ñaayo bëgg ñu jox lo ñu jox lo xal xam da nga ko kii loo lekk nga tok da ngay dégg euh, ñuy nett li jëm mo moo koy nag boo ko ci dégg ci Cheikh tiane benn waay dafa dikkoon mer benn garab goo xam ne waa dëkk baa ngi koy jaamu mu jël sémiñam ne maa ngi dem dagg garab bi Iblis soppeeku ndaje na ko foo jëm mu ne ko damay dagg garab ko mu ne ko déet waa jiitu demal soron nga naa defal fa ñetti ñetti ñetti dinaar demal jël loolu ci toog bàyyi bàyyi kii xam nga kon meroon na waaye meroon na pour que waaye dafa dikke mer ma dañ ko soppi ñaaw ba getta mer ma dañ ko soppi meram meram seytaane mu dik fekk fa ñetti dinar mu faj ca soxlaam ba xaliss ba jexé mu gàdduwaat sémiñam ne ma ngay jëm ci garab ga ah mu soppa dañ ko lako fo jëm lako mëna ko mu nga tay bu ñëk bi amon nga doole yaam way tay boko laalé dana ma lay def sa lu bon <laughs> amaloo doole dafa yàqu nga gis nga seytaan lay naxé té li nak ngol yu bari bari nax nañ ko ci ci àdduna ñoo xam ne ba nga dikkee di coow ñu lay xool ñu jox ñu tagal la garaat jox la alal nga noppi déedéet ñii ñoom wala ñu tëkkul hee ne pat neel pat bàyyi sa oto wala ñu rey la nga ne bàyyi ma ko daal di daal di kii Maalaay Jablaay Ñas keroog bu nga xamante ni bañ na ne doomam du dugg soldaar waxtaan ne taalibe yi bu ci bàyyi kenn bàyyi doomam benn taalibe bu nekk ci kër gouverneur Kaolack moo toog fekkee réunion ca guddi ñu ne mini pile dem leen fekk ko tey bañ seen jàpp ko ah yàlla nag euh, rajul moom min ali firaw nag foo dem fekk fa moom nag benn taalibeem daal fas war fasam guddi daw fekk ko ne ko sëñ bi bu la mini fekk fi tey bañ seen boo fi fekkee ñu lay fi fekk boobu yàlla ji taw na mu ñu commencé ji mu noon la noonu la jëlee bagage dem gaan kon sa nga gis yi nag ñii nag kon ñii kon ñooy ñoo xamante ni duñ ñoom tiituñ wala yaqaafoona fi laay lawmat lii critères yi nga xamante ni moom lañu remplir ñoom ñoom dañoo neex deret nooy nipp ba tax jullit yi topp si leen dañoo dëgër këcc tax yahudi yabul leen ci xéeféer ñuy xeexal yàlla ragaluñ ci ku leen euh, yedd ak ku leen xas saalika critères yooyu ñu am ba tax ñu réussir fadlullahi mooy gën a laaw loolu mooy gën laaw te gis nga critères yooyu tey tey la ko taalibe yi tey la ko lislaam gën a soxla critères yooyu tey la ko tey jimo nga xam ne mooy jamono yi xumbe nag naxaateeg nappaate ci alal ak jayaate nga dikke nag jaayaate munu laa rambatal ci sa ngëm yàlla gi xuppaate mun laa rambatal ci sa ngëm yàlla gi ndax borom daraja yi tey ñoom borom daraja yëpp dañoo wëlbatiku di ut daraja ñañ yaakaare woon ne tey ñooy jàppale diina ji tey ku ci jox alal mu nooy li ci ëpp la waxuma ñëpp de ndax tey moom man du ma wax noo ñëpp moom su ko defee nag la lu tuuti loolu lañ mucc ca fexeel bokkal ca ñooña fexeel bokk ca ñooña su ko defee nag saa lekk loolu fadlaay mooy nga ne yotti dina ko jox man saa ko na yàlla ko neex mu jox ma ko yàlla na ko nekk njoxon ñu ne ko ah mu ne walla walla waxoon naa ko dama ko xam ndaxte xam nga lu tax ñaar yooyu yàlla da ko indi day tëj xel mu doon xalaat yàlla ne waaw ñi mel nii ñépp daf la jox ngëneel xel xam nga xel seytaane mën naa laa yow yàlla mi la ndax mën na ko américains yi ñaata lañ toll ñu nekk àddina bi yëpp yàlla mën na koo ndax moo tax ba tëj loolu nag mu ne yàlla day waa si on ku yaatoo yaatoo la aka yaatu xali mun ko xam la ko war la xali mun ko xam ña ko moy la xali mun ko xam ña war a jox nga ne mu ne gis nga ñaari baat yi mu fi loolu nag moo tax ñu ko indi ko tëjee kon nag andil naa leen beneen promotion boo xam ne xam ngeen ne kon nag tariqa bii tariqa mooy tariqam ngëneel ah andiwuma kon nag mu ngi nii de ngëneel laa ko waaw nag kon nag anak ñañ waxoon ne ñu ngi mas a ñëw si ñañ wax ne ñu ngi ñëw si asillatin aisatin ana ñan la seetal tariqa bi du tariqa xeexoo du tariqa xaccoo dafa di ko tariqa mboqoo rek la nga dégg wax ah Cheikh Tidiane radiyallahu anhu am na ñi nga xam ne ñooy ñiy ah Cheikh Tidiane ba tubaab yi commencé xam nga jamono jamono colonial colonial mooy Cheikh Tidiane fekk na ko fi de ak jamonoy fondation wahhabite lépp fekk na ko fi léegi nag ba nga xamante ne waa Turquie yi jël nañ seen kii bëgg a ñëw dal ci kaw ay nomades yi ay nomades yëg ko dikk na Cheikh jox ñu gànnaay ñun mën nañu xeex ñu mën a dee déedéet su ngeen demee luñ laaj jox leen ko ay dañ laaj import jox leen leen seen import. Mm-hmm. ne fàtte déglu ma rek. ah ba léegi nag masul taal jaar mais réussir na xam nga moo gën a kii kon nag loolu yow rey ni taxul ñun dikkuñ pour rey nit dañ dikk pour jàllale li diina ji diina ji nag bu fekkee ne fii moom boo fi xeexee du jàll soo xeexee yàqal nga diina ji gis nga terrorisme yi gis nga fi ne diina dafa awoon yoon woo xamante ni Assane Cissé ak ñu mel naka ñoom sëñ Mourtada Mbacké de tasaaroo di dem dugal ñu ñi di dugal léegi nag ak ñi nga xam ne ñooy bàyyi ko ci réewu araab yi conférence arab yi dem di dugal nit ñi ci Europe européens yi nañ nañu ngal xay xuut ay nit ñoo xam ne dugg ci diine ji tuddee na ay tourisme te sax bëri na yow dana nga fekk nit muy julli nga rey ko naan man man kii islamiste loolu nag ñoom ñoom ñi nga xam ne ñooy mujaayin ñoo dikk nag commencé ko xam nga léegi tàng diine ak waxaabit yi fa la commencé nañ nañ waxante dëgg rek xam nga ñoom dañ bay yox rek boo tuddee waxaabit wala nga tudd sofiyanke rek sofiyanke dañuy mer am na loo sofiyanke yoo xam ne bindikee am na ñoo xam ne bindikee yàq sofiyanke am na wahabi yoo xam ne bindikee dañu yàq Muhammad Muhammad wahabi am na ñu ko tuumaal ñoo xamante ni tuuma yi dëgg man bi naa ci téere yoo xam ne dañ ko wax ne moo wax li wax la te fekk ko sos ay fen kon nag wahabi yi nga xam ne ñoo topp Muhammad wahab te jumloo ay nit dugg ci Muhammad bopp topp ko wax ci wax xam ne du noonu nañ nañ nañ jàng euh, boo demee ba ci qasim benn waay moo fa dem wax maa ngi téere bi boo demee dikk ma jox la téere bi kooku di benn sëriñ boo xam ne ci sëriñ euh, euh, sotti yonent bi moo weddi wax yooyu ndax boo demee téere maa ngi moom mi ngi nii sama néeg mu ne dafa dem na ko Muhammad Abdul Wahab nee na dalaa'ilul dafa araam dégg nga maam yonent euh, nee na Muhammad Abdul Wahab nee na su amee dool day toj dégg nga maam kii or boobu nga xamante te moom lañ def ci ci kii su ko amoon day toj xabru yonent bi su ko amoon ñu dikk kooka dikk ne ko yow yaa wax li mu ne maasallaahi man koy wax ma loolu ah benn ay bay xosmaan ko waxoon léegi nag lii nag ñu ñun bi ñu yëgee lii ñun ñun nag xàgguñ ca loola Cheikh naa Tijaan moom xam na gaaya fa mu leen di jaar su ko defee rek ci setal ñun bi mu dikkee nag bi nga mooy général bi nga ne mooy général général laa tadribo abadan laa tastimo abadan bu leen dóor mukk bu leen xastaate mukk woo in turibtum fa même buñ la dóori sax bul fay waaye xam na kii mooy gaa yi mooy azillatin alal mu'minin ñii te nag wala yaa xafoon la mat laay xam nga ne moo bàyyi ñes liñ ko xas mu ne lu neex lu ne wax nañ ko lu may Ibrahima ñes xëmb na ndax xam na ne góor du góor du góor du ëmb waaye moo yàq diine ji moo yàq tariqa bi moo yàq nangam moo yàq nangam moo yàq nangam te yooyu yëpp du dëgg ñu boole ko ay ay campagne kat yoo xam ne dañ ne campagne dox lu nekk waaye maa ngi leen di wax ne li tax ma leen lii li tax bul ragal ku la xas ah yow yaa ngi koy defee waaye si waa kër sëriñ tey ñu koy li nga bay si waa kër kër sëriñ ñu koy def nga ne nañ ko def nañ ko def man Baye Niass lay xool di xool soo bët fu mu nga xool mooy Baye Niass lay xool ah, ku may ormaal ormaal naa la waaye nag buy ci topp moom Baye Niass lay topp de ah Baay Ñas nag Issa Sarr Xaynaas li tax ma topp ko dem na Issa Sarr Xaynaas loolu tax ma topp ko de dëggante fit nag nañ la ca tëkku naan kii bokkatu ci tariqa bi xam nga man bi may tukki ci réew naa yi am na ko am na ñuy ñuy campagne ah oustaz Guèye léegi ci naar yi la bokk léegi ci waa bi la bokk bokkal ci tariqa waaye tey defe naa ne ku dégg suñu ders da nga xam ne yaa fenn <laughs> ah ah ah nañ dem nag ñoo leen gërëm mu fépp ñun. alhamdulilah rabbil alamin ñun xaritu ñëpp lañ bul yaakaar ne ñun tey wahabit bu ñu demee ca réew naa ñoo ñu ëpp doole foofu ñun ñoo leen fa ëpp doole ndax lan ñun dem nañ ba xam ne daan nañu xeex waaye dem nañ ba xam ne ñoom ay tappalekat am nañu nekk ci ay tappalekat koo xam ne ku wóor ngay wóor boo gisee ku wóor rek yaa xam wahabit la yaa xam du wahabit da ngay ànd ak moom salafiste mooy ku set wécc ku set wécc am ngëm yàlla ko am fulla yaa xam fu mën a nekk yaa xam salafie wala salafie xaritoo nga bàyyi des la nekk woon kon nag lii na lu nekk xas nañ ko ci ba neew Ibrahima Niass yaa bëgg àddina mën a ku ko mi nga xamante ne ma kii ma kilee eh, mu ne ko waaw ku ko wax <laughs> ba ma benn baas kon nag wax naa loolu ah kon nag laahu waasoon alim fa amma lazina ma indaat benn wa qaala taala ci septième fa amma lazina nag gaa xam ne amanoo gëm nañ billaahi ca laaxu waxta sa moo tëñ moo yaarlu baatam moo foo ko déggee mooy jàppoo xam ne du jàpp-jàppalu dangaa jël buum nga raw ko ci sa loxo it ne ca ngott wow ca koŋ bii foo déggee alxuraan wax na ñu jàpp soo ñu jàpp dañoo moo yaarlu yàlla bëggul kuy jàpp-jàppalu booy jàpp-jàppalu bu la jàpp bu la jàppale nga rëcc bu la jàppale nga rëcc waaye yàlla mooy bu xam nga da ngay gis ba nga xam ne gis nga buñ boo daan dugg booy dugg teen buñ la rawalee buum gi ah, nii ngay def jàpp ci buum yu takku ba nag nga nga nga buum gi loolu mooy moyaanlu koo xam ne ngëm yàlla oto bi fa sa fa sa yudxiluhum dana masa dugal leen ji de soo ci jàppee soo ko gisu tey soo ko gisu ëllëgit nda nga xam ne fa sa yudxiluhum dana dugal leen fi rahmati ci rahmatu minu xam nga yàlla balaa mën a dugal ci daayatu fadli daf lay jaare ci daayatu rahmatu xam nga kuy rahmatu numéro deux xam nga kuy fadlu mooy numéro trois xam nga koo xamante ni mooy joxe mooy numéro un kon nag numéro un doo ko mën a procès dem ci trois da nga jaar ci Euh, da jaar rek wëññi ne da ngay jaar ne un deux trois islam iman ihsan shariha tariqa haqiqa waaye na nga di rek dem ca trois du dem de <coughs> kon nag gis nga lii la kon nag fa sa gis nga fa sa yudxilhu sa sa siin ak saw fa ñoo bokk luy ku def lii de soo soo ca nekkee sax ca danaa la ma la dugal ca sa biir biir rahmatuka minu rahmatuka ndaxte rahmatuki fu mbaay ko rahmatu min laay ah rahma gi ma yërmaane nga bàyyi ko ca man danaa la ca dugal ak fan woo fàddil ak sama fàddu ba danaa la dugal foofu waaye dëgg man day man daal man daal xam naa dana am benn bis boo xam ne luñ dul ci kaset luñ dul arrêté ci kaset ñu wax ko ba mu xàgg xàgg nag ndax xam na loo xam ne noonu kenn ko <laughs> kenn ko nda ko ci yàlla ndax dëgg dëgg yàlla lii dafa fangaar ba ne ba fang ah kon nag nga xam buñ ne xam na nga xam nag ne ne rahmatu buñ ne ah fan moo tax xay ne rahmati xay ne xaqi talat laq bi laq yëpp yow dootu nekkati kumpa ci yow kon nag bi rahmat min fi rahmati min ah kon nag tariqa ba présenté ah ma dem ci huitième aaya xul waxal yow bi fadlilaahi ca fadloob laahu ba wa bi rahmati ak rahmatoob laahu ba laa ilaha illa xam nga kon bii aay bi ñu fari suuf lañ ko wax xam nga dañoo wax dale ci kaw wàcc ci laahu rahmatu fadlu wala bii wala ñu bale ko suuf ñu ne fadlu ne si nga ko lii may lii may sëyru moy nga def isra wa ak mihraj nga yéeg a ko wacce rek nga ñaar tank ngay doxé kon na nga jël tank ba tek ko ci eusel yek benen tank nga tek ko ci kaw ci ëbët motax tax man sa kha yasiru sëyrul abati sëyrul abat nak yow digënté ñaar tank yi mo raw ay 1000 km nga koy dox mo lañ tok bo diggante tëyul ardi xam nga lem suuf ñu wone moy ngay dox fi lem suuf ci saayir bi ñun bëgguñ bobu karam leem suuf mooy diggante xaqaayiq yi niñ nga mën a joggi ca numéro un ba jël si tànk teg ko ci numéro deux te milliards yi kilomètres ci diggante bi kooka nag foofu mooy seen ñaqale mooy seeru amadi kon nag waxal ne bi fadlillaahi wa bi rahmati fa saalika ci ñaar yooyu bu la ko yàlla maye yal nañ ko yàlla may te am nañ ci yaakaar fal yafrahu nañ cay bigee seen xol buy kontaan mm-hmm. bu kontaanee ci naataange àddina amal fadulaay ba ak rahmatulaay ba la ko amee mm-hmm. waaye nañ bigee ci loolu mm-hmm. huwa loolu day xëyru ma gën mi maa lépp loo xam ne ji moom ñu ko dajaloon lépp loo jaloon ci ay darajaaki ay ay daabaaki ay ala ay warwaay ay kër lépp amee ñaar yooyu day moo gën de am ñaar yooyu mooy fadulaay ak rahmatulaay loo mën a dajale léegi ko wax na wax dégg na ay ay ay ay moo tax man ay mën a ay alxuraan boo xamante ni day dem bay jël sama fit lii dafa xoolal lii rek ni mu neexee rek laa ilaha illa allah céy waay ah maa ngi dem ci beneen juróom-ñeenteelu pro léegi wax naa aaya ba ma dem ñaari aaya la ma ñetti aaya ma la njëkkoon ubbil indil la aayab numéro un indil la aayab numéro deux indil la aayab numéro trois maa ngi koy confirmer fii numéro numéro trois laa la indiwaat fii xam nga fa saw fa yi mooy aayay numéro deux ba wa aaxarina am na ñeneen minhum ñoo xam ne lamma yëlxa ko waaj aguñoo ñëw si xam nga ñoo xam nga saw fa saw fa moo nekk ci diggante mooy ne war waaye xam na ñeneen ñoo xam ne waa ji nga lamma ci arab loo xam ne waaj aguñoo ñëw kon saw faa gën a jege ak sa ñoo gën a jege waaye ñi ci des nag mooy ñi nga xam ne ñoo dikk rek ci aqsa ca direction ca masjidul aqsa foofa lañ dikk wa aaxarina minhum lammaa yalhaqoo ñoo xam ne waaj bu ñàkk si biir moo tax ku déggul arab jàngloo balaax bayaan waroo firi alquran ko amul maarifa waroo firi alquran soo ko firi it woo ah, xanaa firi pour wax na farata yeeg nangam yooyu rek waaye xamal fan ci war a yem nga yem ko xam nga li tax ñu koy aaye nga bëgg a dugg ci lu xam ne bokkul waaye nag aaye bii moom nga mën a xam ba xam ne aay bii diw lay wax diwin lay wax loola moom nga xam ko nag boo ko xamee boo gisee ñoo xam ne moom boo leen xamalee mën nañoo dem fekk am nañ am connecté dañ leen décoder ñu ko am na dañ leen décoder ba nga xamante ni seen décode bu ubbiku na ñu am connexion ñooñu moom boo dikkee ne moom connecté leen wa aqarina minhum am na ñeneen lamma yàlla ko ñoo xam ne waaji ku ñooyu si diin ci saaba yi seetal saaba yi de lay wax ne am na ñeneen ñoo xam ne ak seguñ ah ci ñoom lañ bokk seetat xam nga ne koos dëgg-dëgg xaqaayiqi fañ bokkee du fii ah kon nag buñ dikkee ba daw ca maraatib ya lu martaba yi soriante soriante kon nag martaba ba nga xam ne mooy nag moo tax ñu ne xayru xarni mooy sama sama li xëy ci xuróon yi suma bi suma la seen yëloon suma li sama bi ñett rek la wax kon nag karnu bo ak karnu wilaay ak karnu khilafa karnu bu ci nek na dafa ab ay kuróon kon nak legui loolu nag kon ñet ñu fi gën wax rek kay kon wo wo yal ñu ne ko am ah waaw ñoo xam ne guñ legui te ñun boole nañ leen ci suñ groupe bi te gisuñ leen xam nga xel xawal xel saaba yi ah xam nga dëggalu yàlla dëggalu lo yàlla ci ay ba wo kee ki def li alhasisu man koy ko kenn yëbu ko ñu ne ah nga ne alhakim kii moo xereñ kii ji nga baat alhakim ne ma fi ku xereñ moo mën lii kii leen wax lii ne dana am ku wegu la ku xereñ la moo tax xam na de nam ko waxee woon rek noonu la amee kiif kiif kon nag dikkaguñu moo tax bàyyi bàyyi boo demee ci biir mu ne maa ngi yaakaar ne ci biir eh, di ja diwaan bi mu ne maa ngi yaakaar ne ñi ñu waxoon ne insa dana leen dana xayru xam na nga xamante ni insa dana dikk ci ñoom lay bokk rek te ñoom boobaa ñoo dikk dañ leen boole ca sama giir ga mu ne yaakaar naa ne sama groupe bi ci la bokk ah kon nag aaya bi moom lañu bàyyi bëggoon firil waaye neexul dégg nag ndax connexion bi connexion bi moo connexion moo amu doon waaye bu buñ ca delluwaatee ca téere ba suñ ci accès xanaa buñ gannaaw décoder ko nañ affaire yi man nañ koo dang eh, indi mu correct <laughs> que dafa am yoo xamante ni ah da koy gis yaa ngi koy xool te fa yaxtumu insa laa yëkkoonu wilaayatam te yonti wax ne xeesa mooy dikk tëj bàyyi nag dikk bi ci fii nag ci kuréel mu ne mu ne kuréel bii xeesa ñaari wax yi nag bi yoon nañ benn lañ laa yëkkoonu ma faru indiaat ba tey wa yaxtimu l-insaanu wa yatul mansi wa rijaanu wa rijaanu xam nga ñaar yëf moo ci nekk xeesa mooy administrateur bañ mën a xam ndaxte moom lañ doon war a ci ëttu nubuwa masiyatu gi nag bi mu dikkee fii ci ëtt bi mooy masiyatu bi mu fii boo ko am na ñetti tur ndax dafa nekk taxaw ca ëttu nubuwa ca ëttu wilaaya ca ëttu xilaafa bu ko nag Insa Eh, ruuxu laahi ak masiw kon nag ruuxu laahi fan la fële kon nag xeesaa fan la fële nabiyulaahi rasululaahi tudd nañ ko tudd ko rasul nabiyulaahi rasululaahi ah kon ci ëtt bële la ko tuddee waaye masiw fan la ko tuddee xam nga luy masiw mooy nit yi nit yi dafa effacé wu man ngaa gis nit yi kon nag loolu mooy masiyatu ah ku mën a gis ni ci ma ndaxte Cheikh Tidiane ne na nit du yàpp du ruuxu waaye yàpp ruuxu nag buñ dajee nag loolee nga xam ne mooy la fay nekk da yëg-yëg yi nga xam ne mooy am xel ak mën a arrangé mën a xenu amaana ba kooka mooy masihu yëtu ba kooka nag du Insa ma lay juróom kooku beneen waaye la boo xam ne ma ngi ci biir gàdd ka kenn xamu ko xam nga de xam nga ne bu leen yaakaar ne ba yàllay jox egga ay kile bagage ya asamaan mu ne mënu koo réglé su mënu koo réglé ah, dégg maam doj mënu koo réglé bul yaakaar ne booba nit ma ko mën a xenu dafa nekkoon xen nit moo nekkoon ca biir waxama daal insaan xam nga nit ñi dañ ne ay nit dafa taxawoon fële di nekk bagage yi déedéet daf nag waaw yow nag dama nag li ma la bëgg liggéey si su ma ko su ma jox la ko kon da dafa am ñuy mer dama bëgg sen nak kilifa yi nga xam ne haqiqa yi xam nga mom ma jass la dama koy proposer haqiqa yi su ma ko póoree xaqatu Muhammadiya mu ne mënu ko régler mu posé ko xaqatu Amadiya mu ne mënu ko régler mu posé ko xaqatu xilaaf mu ne mënu ko régler kon su ma la ko joxee duñ mëna wax ndax joxon di ni jox lo ma ko waxama al insaan ma ne ko aj gënal yéen ko ah moo tax ñu ne kon nag bi sew mi wa aj ji lam asar fal wasaayiqul fa këram yow ma tulaal ndaxte li natt la loo xam ne yow ñu ne lu tikkam majaas la xam nga kii majaas la boo demee ci téere mi nit nit majaas la kon nag ñoo tax nag mooy payu adam fii mooy payu ñàkk xam nga ñàkk mooy lan mooy koo xam ne mi ngi fii te amu fi ana ndax roo am am na waaw waaye anam gisuma ko kon amu fi kon nag dafa niroo fa mu bàyyi ko kon nag ifaadati ka min ka ilayka fii fii la ko doxee si fii la ko doxee si <laughs> ah kon nag ah, xob mënu régler sama affaire gattax mënu régler sama affaire ngoot mënu régler sama affaire koo ko a régler pepp kon nag la pe la gattaxay nga xob da xob la laaf laafee bëri yaayam ah gaar daal ko xam ne mënuma ko rek nga tax mënuma ko ŋóot mënuma ko rek ku ma rek kon kon nag peppaar rek la ko kon nag peppaar dañ ko nëbboon ca biir euh, euh, pepp mu dikk ci euh, xob nëbbu fa dikk ci gattax nëbbu dikk ci ngoon nëbbu fa dikk ne ah maa ngi ne dalay maa ngi dikkaat nag kon nag lii mooy nit yi xam nga jàngal naa lu nit nit yi mooy nit yi nii nag moo tax ba ngay demee de wut daante kenn ku ne nag la nga nekkoon ca un ba un ba njëriñ ba nekk ay milliards yi un un bu nekk fa mu feeñee bokk na fa mu feeñee benn un bu loolu ko sotti yaa waxee ba tey ñaata at la tey mi ngi nii demal uti dante demal uti passeport bokkale ko kenn sept milliards et demi sa un benn ku sa un ba benn un la beneen un nekku kon nag mi ngi nii ba tey kon nag mi ngi nii. am na ñoo xam ne ñu ngi ñëw si lamma yalhaqoo bihim waajaguñu ak si ah ñu ne waaw ñu ne mu ne waxu alxasalati ma tax saaba yi saaba yi seen ngëm nga àlla seen yu'minu bil ghaybi saaba ya la ndax li kumpala woon te gëmoon nañ ko ñun nag kon gis boo gisee ñu ne saaba yi ñoo ñu gën mooy dëgg-dëgg yàlla ñun dañu ko fekkeel kon nag dëgg-dëgg yàlla ñi nga xam ne ñoom fekke wuñ te gëm ko ña ko fekke rek te jamono ci jamono te jamono boobu nag ñoom la xay dal ñoom ñi nga xam ne ñu ngi jàng alquran ngal ngal alquran guddeeg bëccëg te la mu mi ngi nii tey te xamuloon ne ngi nii tey seytaane ak ay dikk gàllankoor ne du du lii oh yàlla ma sotti ko kon nag gannaaw loolu day moo am ah yàlla day xasis la te day hakim la de mom yalla bi fadlaay wa bi rahmati kon nak a fal yafrahu fof la nek ñaar yi nañ ci bëgg de ma ngi de ma foo hadis ak ci laa nekkoon salika loolu nag nga nga fekk ho te bok salika loolu fekk ho te jox la ciir ba nga xam mom lañ jox ciir ña fekk ma dundee nek fi way nak bal mom la fi baal lii ñu ne ay ñun ñu fekk rek te bobu xam nañu taxaw kat bokk fekk fekk fi ñu séddoo ñu ne ah Madou ne dikkul waaye moom moom bii ah ñun ñi fi nekk rek ah bokk na rek moom bi ah balaa ngay laaj cër da ngaa xam li tax ma jox ko cër bii da nga ko waroon xam li ma doon li ma li fa ma doon jaar ba jot cër bi te fekkoo mu nga waroon laaj ah ah ñun nag wax yàlla moo ñu ne ko yonent bi yow maandoo mu naa ah man soo maandoon koy maandoo ah <laughs> ah kon nag ah kon nag ñooñu war saare ka fat laa yutt dana ko jox man saa ko ko neex maa ko jox ko ma neex kon nag diw di euh, madu nag baaba fekk xuñ xoon wala boog as ngóor soo xamante ni ngóor su ñàkk fayda la fekk wu waaye nag ah maa leen ko jox nag maa la neex wala ñu ne ko ah yow lii nga fi nekk mu ne waaw waaw wallaahu laahu sol fat li may borom nga ne asim ak lu ma gën boo déggee sol fat li asim mooy laahu ah léegi indil naa leen ko juróom-ñeenti aaya waaye xanaa juróom-ñeenti seede waxuma indi benn seede ñaari seede juróom-ñeenti aaya yu leen mën a seede li may wax li indil naa leen ko kon nag lii ku ko am gis bii la tëjee gis nga bàyyi bi mu wax ni mooy bi nga xam ne mooy feewu wax moom la jël ëttali bi seet la seet la xereñ bi rek lii waxinu xereñ bi rek ñu mu demee rek mm-hmm. ah ah wa aaxarina minhum lammaa yalhaqu moom mooy groupe bi mujj si moom la mujjee wax si xam nga ne kii waxi nii du waxi du waxi du waxi du doomu aadama kese moo tax misri yi mu ne ah ah ba muy tontu ba mu wax dem ñu ko mu ne buñ demoon ba xam sirul akbar la ca dë lañ ca dëxëñ lu xam ne benn wala yu ba su ko indi day xam ne suñu waaj soo waaj bi morom kon nag andil naa la neuf aaya te des na nag lu ëpp lu ko ëpp dama laa indil xanaa lii war naa doy su doon dana waaye nag am na ñoo xam ne doy leen am na ñoo xam ne dañu dikk sàcc si bañ bëggee diplôme ca euh, réewu naar yi dañoo dikk di ma am ci Médina wane ne bi dañ bàyyi ko Nigéria mooy waaju nga xamante ni boobu daan dégg noonu waaju saay saay sooyu yooyu dikk di nga maam bàyyi boole ko gars yi di ma am mu dem da am ñu jël sur akbar ko la xaw ma grand bàyyi la xaw ma kanaku mooy kii mu daal ko jël nag dem nag def ko ci téeram bi nag dégg maam naar yi nag ne ko yow yow yow def may nga waa ji promotion <laughs> dégg ah. Ah? xam nga cël na boobu ba tey na nga tut feeñ kon nag fa bi baax di ma lenn ci laa xam yi aaya lenn la aay yi ngay xamee yow ah, eh, baalo a ah. ah, an man naka képp koo xamante ni wafaqoo may na ko sens allaahu laaw laawooy may sens de du bàyyee may sens du Cheikh Tijaan may sens moo tax wallaahi wallaahi wallaahi wallaahi kon wallaahi koo xam ne xamul teggin teggin te te adaabu suluk waroo wax sax puisque seeta lii mooy adaabu suluk aadaamu si loolu da nga wax ba pare wax jo xamne ñepp depp dañ koy jot ba pare duñ ci am problème waye waxin yo xamne nyam yow wax wax yoo xamne boko waxe ñi am ñi am mari rek ñoo ci contane ma ma eh, borom sariya yi duñ ci kontaan salafia duñ ci contane yu demé nak nonu loolu du xam-xam xam-xam la ngay wax nyam xamne nyam da nga indi nyam alquran am na indi bokkal niveau bokkal yépp ko bokk té boo ko yow ñi xam ñi xam na xam nañ am nañ bernd xam nañ bernd ci bi indi baat boo xam ne ñëpp dañ ci bokk boroom borom xaas yaag xaam te baatab laaw baat la boo xamante ni baat bu dajale waa xaas yeeg waa xam ndaxte mooy laaw laaw dañ ne moo ndar képp sifaat ya ak asmaaw ya léegi nag baat bi dikk ndar képp sifaat ya ak ya soo ko dikkee foo xam ne fa la ndar képp yi ñëpp nag nga bëgg wax wax joo xam ne war nga saa jëriñ ñëpp indil laahu boobaa nag ñoom nga xam ñoom mooy borom xaas ya ñu ne waaw allahu mooy kan moo tax Cheikh Tidiane dafa ànd ñoom ba pare mu ne nihaayatu axta mooy bidaayatu assaabi ñu ne fa ah mu ne ah mu ne ah yéen kaay gaay leen jël leen seen wàll fii ci laaw bi am na beneen ruq soo xam ne ñoo ñu fa dencal suñu suñ kii nañ leen dem ah loolu nag dul yàqal gaay seen cër bàyyi leen ko soo ko jëlee ba pare ngeen waaw ngeen pare ngeen waa acca kon kenn ku ne na ñibbi ñun nag ñu ñibbi nag ca fu nga xamante ne moo ñu taxoon jóg nga foog ne ñun ba gars yi ana nga ah gars yi ñibbi nañ nga foog ne fekk na boobu ci jàll ci leen nii ci ay ajjana yi numéro bu bi ba ci kii ñu ko juróom-ñetteel ndaxte ma ànd la si la anam laal mi ne bii foofu ñoom nga ànd ak ñoom groupe bi foofu la ñibbi kon nag kuy laaxu may. taala li doxooli tariqat na ma moo tax moo tax moo tax ma tiit ne. ñii bokkaale ñi dem ci laahu ñu dem ba bàyyi tarbiya nga tarbiya ba di ko wane laahu ñu dikkaat nag day ñaan yal nañu ñu bàyyi may yi yal na jërëjëfee bàyyi damaa tiit ci ñoom. mooy lan bokkatoo. ndaxte yaa xaam yi a bokk wax bokk wax. ku bokk ak xaam wax bokk ak xaam wax xaam yi ñoo daan jërëjëfee sëriñ bi jërëjëfee sëriñ yal nañu sëriñ bi may nga dikk yow nga demoon ba dem ba ne laahu de nga dikk daan jërëjëfee bàyyi yal na ñu bàyyi may ñibbi nga fa gaay ñibbi yéen a ngi yem billaahi wallaahi ah xeesaa yàlla mariyaama yàlla xusar yàlla nga dikk ma naan bàyyi mooy yàlla bàyyi mooy yàlla yow itam yow yaag xeesa yaag yaa waay waa nasaraan yi ne yem yaag moom kat chrétien yi ne yem képp lu ngeen wute ah kon nag na xeesaa layoo nag yaa xeesa ina ma ah, ultal naas bu yomal xiyaame bu keroog nam xeesa layoo ak billaahi da ko lay bàyyi ndax maa la waxoon ne man yàlla mm-hmm. ah doo wax ne maa ko waxoon de mm-hmm. lu ma bañ la sar bi yàlla loo waxoon mm-hmm. wala si ah sëriñ ba nga xamante ni moom dafa dem xamu fu yoon bëgg bëgg ma bëgg ma mbubboo xeewee ma la nan bàyyi bàyyi bàyyi bëgg lekk yooyu moom moo la xeewee lii ma nga tax ngay ngay bokkaale man danaa ko diggaale yow acca ca biir fële xamatuma la xaw ma ndaxte yàqal nga ma sama liggéey yëpp mm. ndax bëri na ñoo xam ne bëggoon nañu dugg ci tariqa bi mm. bañ dikkee fekkee nit ñoo xam ne dañoo dañoo dugg ci tariqa mm. a dugg kon nag yàqal nga bàyyi liggéey xanaa xamul ne bëri ñoo xam bi jëfinu taal ko ku tuddoo bàyyi ah nga dikk tuddoo bàyyi ba pare da jëf jëf yi ñaaw day tax nit ñëw nga dikk tuddoo lislaam da jëf lu ñaaw ci lislaam day tax nit ñi duñ dugg ci lislaam kon nag ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izatil hasana xare nga fi war a duggee ak man a kon nag koo xam ne xare nit waru wax waru waru nekk sëriñ warul oote warul wax na noppi rek kon nag moom kon nag moo koy def moom yàlla li duxooli tariqatina ku yàlla may chance nga dugg ci tariqa kaamu nag man loo ñëw ko saat daare waaye dugg laa ko de waxuma jàpp waxuma Louga de teetal de ah bis nga lu ma lay wax damaa bañ nga dem nga dégg que trompe la loolu la wax kon la kon ne ku may man in an Naman man wafaqahoo laa hmm. ku may saas laaw bi li duqooli li duqooli li aksi waxu li aksi li duqooli tariqat na man naa loo ne ko ñaar kër wakkaan dafay nekk minal na bokk ci ñu soppooy lii jar lii jar noonu nekk waay da nga xamante ne bokk ñu taxe ñëpp da nga bokk ci daayira mahbubin mm-hmm. al maqbul yi nga xam ne mm-hmm. bokk mm-hmm. bi maanaam nangul nañ seen milite xam nga militant wu àddina bii moom soo mën a jënd carte rek bokk nga sol ci seen mbubb yi waaye bële moom critère ngay rempli doo ko bokk ah nga topp laaw topp rasool doog a nag amee la salaire yooyu ngay ngay ngay ko ngay ngay def kon nag almaqruhin lay ala ay xaalatin kaanam ak xaal ba mu nekkoon day génn ci xaal ba rek gis nga fi ne boo dugg ci kii waxul ne xaal ba nga nekkoon ci xaal ba ngay nekk ci tariqa bi de koo nekkoon ci xaalu njubati bay dugg ba rek na koo déggee dugg na ci tariqa fekk mu doon naan bàyyi sàngara fekk mu doon tux bàyyi tux fekk mu doon jàll bàyyi bu jàll dugg ci tarix ba waaye boo de dugg yonent bi dafay ragg ci yow sa xol ba lay ragg ba set wécc wécc ak sa xel ma du ko xalaat sax du ko soo bëggati xanaa am na xam ne am na ñoo xamante ni dem nañ ah ñoo xam ne daan naan sàngara bañ ne ba leen sax ba leen li leen gis boo dañ ko woon bëgg ko rek mu moccu xam nga loo xam ne yaa ko doon bëgg léegi nga jóg nga daal di woccu xaax ah. woccu doo ko laal noonu lañ duggee kat waxoon na nga cee dugg pare def ca sa caay-caay nga xamante ne moom nga nekkoon waxuñ loolu kon euh, euh, def premier tour su ko defee ñu dem ci. ah.